daayira mu xadamatul xidma bi saytu jumaay Tuubaa ju mag ji ak taxawu ci fànn yépp ñooy fàttali mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi mbooleem teggin ak ma yi nga xam ne war nañ ko sàmmonte ak barab bi waaye di leen fàttali mbooleem tere yi nga xam ne Sëriñ Saalihu Mbàkke moo leen ko santoon ngir ñu sore ko jumaa ji bokk na ci li nga xam ne moom lañ fi tere ci mbooleem li nga xam ne moo wër pénc mi muy am njaay di xeetu njaay mu mën a doon dañuy ku fi lal di jaay bu dee jamonoy màggal nag may nañ ab jaaykat mu yor am njaayam daal di romb waaye sañu talal di jaay ci li nga xam ne moom wër pénc mi dañu fi tere xeetu weccet yi nga xam ne moom lañ faral daan gis ci dëkk bi muy boo joxee nit ngir mu wecc la nga jël ca dara dañuy tere it li wër pénc mi diwaankat yi mu ñi nga xam ne dañuy géew di waxtaan di waxtaanee loo xam ne du dara lu jëm ci lislaam ba léegi dañuy tere lu wër jumaa ji camion vidange yi muy camion yi nga xam ne dañuy vider foos yi ndax sobe soosu mën naa rogalaat ba taqal pénc mi wala ñu paan fii mu mën a indi beneen gàllankoor dañuy tere it di fi jaarale ak jur ngir ñoom it mën nañ fee def sobe soo xam ne ku fi jaar mën na laa taq tere nañu fi ba léegi ñi nga xam ne dañuy wër ci pénc mi te kenn santu leen ko wala ñuy màjjal te waru leen wala ñi nga xam ne dañuy filme wala ñuy jël ay son yoo xam ni amuñu ci ndigal wala méngoowul ak barab bi moo tax ñuy sàkku ci bépp caméraman boo xam ne bëgg naa ñëw filmer ci biir jumaa ji ak ci pénc mi mu ñëw ba ci waa daayira Muxaddamatul Xidma ci seen bureau bi nga xam ne moo nekkee ci biir jumaa ji ñu jox autorisation ndax am nañu ay ndaw yoo xam ne ñu ngi nekk sur le terrain di saytu lu ni mel mbooleem yi nag ñu koy fàttali mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ngeen ñu sàmmonte moom te gën a war malaat jumaay Tuubaa ju mag ji